Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar di la baalu di la baalu àq ci bis mu màgg bii di bisu xasida bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moo ko woote. mu mel ne comme ni ñu ko laaj rek du jar ñuy guddal fondation bi da di fondation boo xam ne ay ndawi Serigne Saliou ñoo ko taxawal di ay dongee tërbiya yoo xam ne ci loxob Serigne saali Mbacké lañ jaar ginnaaw bi ñu xamee li nga xam ne moom la daar jiitewoo ak li nga xam ne moom la daar ji bëgg looloo tax ñu taxawal ko. woo ci ñi nga xam ne ñooy soppe Serigne Saliou ñu wuy suñu ci fondation bi nag yitteem jëpp moo liggéeyal Serigne Saliou ci ndonga yi ci daara yi ak ci xelkom ji ak ndigal yi mu fi bàyyi muy gàmm gi loolu tax ñu taxawal liggéey bi bañ ko sosee nag ak léegi matugul sax deux mois mais liggéey bi ñi ngi ci gis ak soppiku bu baax a baax ñi ngi ci gis yokkute gi ndax wooteel Serigne Saliou moom dafa yomb lool waaye nag ci kaw ndaw ñi bu ñu see ñu xam niñ koy liggéeyalee ndax Serigne Saliou kat ay mbiram moom saa su nekk la muy bëgg mooy lu rafet rek loolu tax ñu taxawal liggéey bii euh, fas yéene kon nag liggéeyal ko ci daara yi. maanaam bis bu mel nii ana nan ngeen ci taxawee ci seenu liggéey yéen. waaw mu mel ne sax dañ ñoo fekk ñu yóbbu ay addiye nii mbay doog a dëpp ci suñu am satu euh, ànd ko mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo nekk ci biir daara ji ñu dajale woon ay xéewal defar ay añ ak mboolem ay teraanga yoo xam ne yaatu na lool indi woon ko fii ci jumaa ji ngir jox ñi nga xam ne ñooy durus xasida yi waaye di ko yëkkati ndaw ñi nag boobu ba léegi dañoo samp waañ fii ci mbal foofa lañ nekkoon fa lañ jigéen ñi tey ñaan nag at mu jot bu dellusee muy gën a yokkute bu baax a baax a baax ndax. maanaam boo doon wax ki nga xam ne mooy seetaan euh, yéen lan mooy seen objectif fan ngeen bëgg a jëm incha allah. waaw fi ñu bëgg a jëm mooy maanaam mbooleem liggéey boo xam ne Sëñ Saali Mbàkke sumboon na ko fi fondation bi ñu gis ko ci bu baax a baax ndax loolu mooy li nga xam ne mooy sababu taxawa taxawaayu liggéey bii bu ñu sañoon mboolem liggéey boo xam ne siñ Saali taxawal na ko fi moo xam mu doon xelkom ji wala ci ndongaam yi nga xam ne amul lu dul ñoom amul lu dul daaraam yi ñun bu ñu sañoon mboolem addi yi ñuy dajale dañ ko yóbbul mbokki donga yi bu yàggul lañ jugee ci daara Sëriñ Saaliw ji ci ngaabu fóotali ndonga yi bi ñu demee yóbbu leen ay teraanga toggal leen añ yóbbu leen ay xéwal te noonu lañ koy jàppoo weer wu nekk la cinq àjjuma bi ci njëkk danañ àndandoo ak mboolem membre yoo xam ne bokk nañ ci biir daara ji dem seeti ndonga yi ziyaare ji leen euh, fóotal leen seen yére yi yóbbu leen ay teraanga tey ñaan waxtu wu nekk bu dellusee muy gën maa ngi nuyu leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen baax di sant bisub xasida yi rek di sant sëñ Tuubaa rek di sant yàggal Muntaxaa yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaan bu baax a baax a baax te ma ne lépp lépp liggéey maam bi am na solo am na maanaa ah jëbal na ko nag ah, waa Asabul Janna Asabul Janna itam jëbal ko maam si Ibra Faal ba delloo na mbat ca ndaa la man daal man soxna mi kontaan naa bég naa maa ngi leen li ngeen man da yàlla ngeen déwén lu ko baax a baax a baax waaw ci barke Asabul gis naa ne da la moom mooy rek ñëw waaw Cheikh Bousso mooy suñu jawri laaj bu am solo nga laaj muy laaj ba nga xam ne nii nan lañ dajaloo ba ba taxawal kuréel gu mel nii euh, comme ni murid yëpp da dajaloo rek di taxawalee di taxawalal Serigne Touba am mbooloo noonu lañ taxaw dañoo toog waxtaan ci suñu biir waxtaan ci suñu biir ba suñu xel daj ci ni war nañoo taxawal Serigne bi ab ab daayira muy jamono yu yàgg nag jamono Serigne Saliou la woon Serigne Saliou moo ñu tudde Miftaahul Manaal Wusul Serigne Saliou moo ñu tudde Miftaahul Manaal Wusul Euh, ñu ñu ñu ko ñu yóot ko liggéey bi ay at ginnaaw ba mu fa jógee mboolem ku fi nekkal Serigne Touba ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii ànd nañoo ak yow liggéey bi waaye nag lii ñu xewal ci jëmmi diirub diirub ñetti at yi wala ñeenti yi ba xam ne Cheikh Modou Mountakha mi ngi woota liggéey bi muy woote ci xasida yi ak sikarulaa bi booba lañ nag lëkkaloo fépp ñu wax ni daal bëggatuñu sëñ bi soxlaati len len lu jëm ci wàllu mbooloo fu ñuy daje ñuy làmb seen poos di luyee ji rajo wala ñuy def leen jomb nañ loolu ndax ñun ñi nga xam ne nii Serigne Touba moo ñu moom moom sunu matériel bii bu ko soxlaa mbooleem fu waay mën a nekk war ngaa jël li nga yor indil ko Serigne Touba ndax moo ñu moom moom bagage yi ba amee xalaat boobu ñu waxtaan ci def ay ay ay daje yu baree baree bari bañ defee daje ba ñëpp maasa ñu ñu ànd ci bu sëñ bi soxlaatee dañuy yóbbu bagage yi loolu ñu ngi ko njëkk a ci bisu xasida bu njëkk ba mboolem fa ab site nekk ci dëkk bi yóbbu nañ fa rajo Sexaw ga Daarul Tansiir Umul Xuraaf mboolem fu pencum Sëñ Tuubaa nekk rek mbooloo mi kenn ci ñun ma di taxawee liggéey bi. ba ren jii nii nii mu demee nii ñu indi ko fii day ci penc mi noonu la ñuy taxawaat te ah, te li ñu njëkk a jaayante mooy bis bi señ bi joxee ndigal ni bis bisu xasida bi sàngam la bis bi moom kenn du ci luyee rajo buñ la doon fay téeméeri junneet doo luyee say rajo. donc ndax dañoo jaayanteeg Serigne Touba. bu ngeen ñëwee nag. Hmm. ci ngeen di séddalikoo. li ñuy séddalikoo bu ñu ñëwee kenn ku ñu nekk ñu ne la demal barab sangam ndax bu balaa booba ñu ne comité bi dañuy daje mooy comité bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ak waa Kër Sëriñ Amsa yi ñoo ko ñoo ko taxawal dañoo am membre ci biir dañuy daje bu ñu dajee ñu def ñu defar seen benn list ñu wax nit ñi soxla nañ lu toll ci ay sites toll soxla nañ toll ci cinquante sites yoo xam ne ni fenn fu ne sunu dafaa war a dem ñu waxtaan ci suñu biir kenn ku ci nekk ñu tànn ki suñu biir kenn ku ci nekk foo ñu xam ne sa sa bagage mate na ñu yóbbu la fa ko ñu xam ne sa bagage matoo ko ñu boole ñaar yóbbu leen fa ba barab ba buñ fa demee lépp day mucc ayib noonu lañ ko defee tey jii nii ba mbooleem fu fu ab tànt nekk ci biir penc mi ak kër kilifa yi nekk ci penc mi yëpp suñu mbooloo mi ñoo fa nekk taxawal fa sëriñ bi loolu ban euh, ku wax nag mbooloo mel nii ñaare mbooloo ñëpp duñ bokk lan ngay lancé ñi ne ci biir dëkk bi hmm. waaye sax nag nekk ci yoonu murit te yor ay matériel yoo xam ne man na ñoo dawal wagon gaare lan nga leen wax ndax liggéey bi daa tëju ci ñoom wala ndax tëjukul liggéey bi tijji nañ ko tijji nañ ko ñi ngi woo ñëpp bari na ñoo xam ne nii sax dëkkuñ ci dëkk bi te yor rajo xasaayit bokk tàbbi nañ ko suñ biir mbooloo mi ci dëkk yu bari na ci biir Sénégal ñoo xam ne nii ay membre la ci biir mbooloo mi am na ñoo xam ne nii jëla nañ seen am na ñu jóge Louga am na ñu jóge Ndar am na ñu jóge ci yeneen yoo xam ne suñ membre lañ bokk ba ñu yëgee bis ba dañoo daal àndandoo ñoom it ñëw ànd liggéey bi te noonu lañ fas yéene mu wër mu wër na bépp mu wër àdduna fépp fu ab daayira buy liggéey Serigne Touba nekk te yor lu mel ne sono fas yéene nañoo jokkoo ak yow boole la ci biir mbooloo mi ndax kat Serigne Touba moom léppam daa war a daje doon benn